بسم الإله يكفيني القدر يا الله سفين بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله يكفيني woyof néew doole ñàkk kàttan ñàkk pexe gaaw a tumuranke moo tax yàlla digal doomu aadama yi ñuy dimbalante seen biir te wàkkirlu ci moom. ñu ngi soññee ci Touba ci kanam surtout lu jëm ci wàllu social bi ci suñu mbokk yi nga xam ni dañoo néew doole ndax euh, ku daan dem mënatoo dem ak fi jamono ju toll nii ak xew-xew yi euh, jàpp naa ne ku tane sa morom ni ko sëñ bi waxee war nga cee jiitu te kenn du la ko wax. Euh, alhamdulilah nag bi mu fekkee bi mu ñu fekkee ñu nekkoon ci. ci wàllu sociale bi muy Touba ci kanam dañ daan def ci sancaan yi ak nit ñi new doole ñi euh, waaye nag fi mu toll nii dañ ko gën a yokk ñuy lâche appel nag ci àdduna bi yëpp ak ci réew mi képp koo xam ne nii am nga loo mën a participer ci compte yooyu nekk ci bandu écran bi ñu fexe ñu ñu dugal ko ci ngir Touba ci kanam man cee jot yóbbu ko ba ci sancaan yi alxuraan dafay wax ne wa taxaawanu alal birri wa taqwa wala taxaawanu alal ismi wal xudduwaan kon loolu suñu borom moo ñu ci njëkk a sonn ci ñuy dimbalante euh, ci liñ tanante ak dimbalante ci wàllu ragal yàlla te nit ki nag bu fekkee danga nga ko bëgg a dimbali da ngay fexe foo xam ne nii boo ko joxee dana fa mën a egg te jàpp naa ne fii bunt bu baax la ndax boo demee tey jii fu mel ne Bokhatul Moubarak tey 2000 habitants ñoo fa nekk 2000 habitants yi bu bët sëbbee du ñu am oto yu leen indi. duñ mën a dem duñ mën a dikk rawatina nag jamono ji nga xam dañ ne fu 3 jotee nit ñi nañ dagg seen activité bi ci kër yi kon ñi ngi ñi ngi ñi ngi sàkkuwaat ndimbal ñu ñu ñu ñu ñu jàppale seen mbokk yooyu. Euh, beneen point bi mooy Touba ci kanam dafa doon méthode boo xam ne nii euh, ku nekk ci ñun rek da nga cee gis sa bopp ndax dañuy laaj luñ am def ko fuñ xam. ba pare ñu ne Touba ca kanam kon ñun ñi nga xam ne nii nag ñun ñooy waa kër Sëriñ Touba moom ñoo ci war a gën jiitu moom. waa kër sëñ Touba nag bu ma ko waxee euh, mbokk taalibe bi ñëpp kenn génnu ci maanaam kuy tuddoo sëñ bi rek yow ci waa kër sëñ Touba nga bokk ndax sëñ bi dafa waxoon ne moom mm, ay ay ay ak ay taalibeem ak ñooñam rek laa wax kon boobaa génnul ñooñu kon ñu jàpp ne euh, ndimbal loolu moom ñu koy sàkku ci mboolee mbokki taalibe yi euh, di nuyu nag particulièrement suñ mbokk taalibe yi nekk ci jasporaa bi ñu xool niñ doon jàppee ci wàllu liggéey bi Touba ca kanam jamono yii nag ñu am mbas mu fa nekk moo xam ne nii mu ngi ci àdduna bi yëpp waaye nag euh, ñu delloowaat suñu xel ci yàlla te xam ne moom mi ko fi indi rek moo ko fi mën a jëlee di leen masawu nag coono yi di leen ñaanal suñ borom musal leen ci ba ñoom ñëpp ñu ñëwaat si jàmm fekkaat seenu njaboot te jàmm may lance appel nag mboole man ñi nga xam ne nii particulièrement ñooy samay xarit di sama nitu bopp ci naaw ñu seqoon fi lu mat ay liggéey yoo xam doon nañ reporté sancaan yi doon leen dimbali ci ay ceeb ay dëwlin ay suukar buñ buñ amaatee yenn bunt rek yoo xam ne ñu ngi ko bëgg defaat ñu xool Touba ci kanam contacté leen ñu nga xam ñoo yor wàllu social bi te ku mel ne sëriñ Mourtala ba sëriñ Abdou Fatah jiitu ko di sunu xarit di sunu wëllëri def ci liggéey bu am solo barki bu damay seetaan benn vidéo boo xam sama yaram daf doon daw daf doon daw te ñooñu ñu gën a mat a dimbal dimbal nag buñ ko waxee du caagin dañuy ñëw ci centre dëkk bi li ñuy wax centre mooy ci ci daaxaliyaatu dëkk bi rek ci digg bi ñu ñu dimbul leen jox leen ko bàyyi suñ mbokk yee ci ginnaaw am na ñoo xam ñoo ñu gën a soxla malgré que sax euh, nit ku ne bëgg nga ndimbal mais nag am nañu tanante rawatina nag suñ mbokk yooyu nekk ci sañcaan yi nga xam bu tawee du ñëw amuñ transport bu leen mën a indi ñu nekk ci ay situation yu doy waar mbokk yi nañ leen dimbali. Touba Ca Kanam liggéey la boo xam ku ne war na ca gis boppam boo xoolee jamono yi amoon nañ ay jafe forage dégg nañ lu ñu ministre bi wax. ak ñoom ni ñu réglé situation bi kon loolu preuve la beneen bi Covid 19 bi cinq millions génn nañ ko dépassé ko ci hôpital yi ak daara yi ak district yi pour dimbali nit ñi loolu c'est important preuve la ba ci des mooy éclairation publique bi bokkut ak poste de santé yi du ñëw seen bilan parce que nit ñi ñu ngi koy gis kon mbokk yi nañ xam liñ am lum mu doon Touba sa kanam mooy mooy mooy dafa sologaam bu wuyu boppam. parce que dama lay laaj loo am def ko fuñ xam lañ koy def dana la sécuriser da nga ko xam fañ koy def wax dëgg yàlla 1000 francs par at bëriwut kon maa ngi laaj appel mbooleem ñi bokk ci kër Cheikh Ahmadou Ndoumbe bokk ci kër Cheikh Ahmadou Ndoumbe nga xam ne sañ naa leen a soññ ñu bay lii xel ndax am na ñu am ñu néew doole ñu fa nekk am na ñu am ñoo xam seen loxo jotu seen ginnaaw soxla nañ ay làmp soxla nañ leneen ak leneen kon buñ ko tànqamlu loo fi def mooy la nga defal ma Mandoumbe mooy la nga defal sëñ Touba mooy la nga defal sëñ Modou Xaban ñu ngi nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah الأقدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله بسم الله في ويف néew doole ñàkk kàttan ñàkk pexe gaaw a moo tax yàlla digal doomu aadama yi ñuy dimbalante seen biir te wàkkirlu ci moom